bismillahi finin الدار يا الله سفي بقاء بهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jiital ci sunuy kàddu sant sunu borom subhaanahu wa taala waaye julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne lu mu bind moo tax feddliwaat sunu yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim ñaanalaat ki fi nekkal Sëriñ Tuba di Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool doole ak wéram di toog nag ci ëtt boo xam ne ëttum ndigal la ëtt boo xamee ne ëttub jaamukatub yàlla la waaye ëtt boo xam ne nag ëttub murid saadix la di ëttub sëriñ naar jenn moom sëriñ baara jenn moom sëriñ isaa mbokk yi miin ngeen di ànd ak ñun ci jataay yi nga xam ne moom lañuy amal ci seen télévision yi waaye ak ci site internet yi ngir fàttali ko nitu yàlla ku mag te inda sikri saalihin tansilu rahma borom xam-xam yi nee na fàttali ko nitu yàlla day wàcce yërmandeem te borom xam-xam wax nañ ne ku taarixal nitu yàlla dafa mel ne yaa ko dundalaat te sëriñ naar jenn bokk na ci nit yàlla yi gën a mag yoo xam ne ku ko waxtaanee nit ñi danañ mën a roy ci moom ay jikko ca benn jikko ku ko am ci sëriñ naar sa tex ak àdduna ak goog alaxira mën na ca am loolu moo tax ñu toog fii ci ëttub doomam ji nga xam ne moo ko fi nekkal di sëriñ siidi yàlla na ko sun borom may fan wu gudd ànd ku wér te kattanal ko ba lépp loo xam ne way juróom wa naaloon na ko mu àggale ko te naal naali boppam ànd ko ak rakkam yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te di ko déglu waxtu wu ne te lépp luy may ndam kër gi ni di ko ànd ak moom yal na yàlla boole leen sàmm te taxawu leen ñu fas yéene fàttaliku nag jëmm jooju toog ak koo xam ne kenn la ci njabootu kër gi di sëriñ Mbàkke Sourang mii ñu toogal di doomi sëriñ Seex Sourang moom sëriñ Ahmadou Daam Sourang yaakaar naa ne ko xam kër gi bu ñu tuddee ñooñu danga ko xam ñu fas yéene waxtaane nag dundu jàmbaar jooju mag nag bu liggéeyalee yàlla ci ay at yu bari te liggéey ba mu daan ko liggéey suba ak ngoon ci vingt 24 sur 24 waxtaane ko ci ay minutes dana néew lool waaye dañu wax ne junju doy na boroomam xel te yaakaar naa ne sëñ Saaliwu daana wax na loo lu ñëpp xam loo ci jund dana doy yaakaar naa ne bu ñu taarixalee tuuti ci sëriñ naar rek fàttaliwaat mag ñi fi nekkoon la waaye jàngalaat xale yi nga xam ne ñooy bëgg a ñëw lay doon ñu bëgg nag ñëw tuuti bala ñuy njëkk ci sëriñ naar mënee su ko waxtaane ca tuddoo sëñ Baara ma ne suta waxtaane sëñ Baara ca tuddoo sëriñ Isaa sëñ Isaa nag doon doon boroom ciirub yàlla bu mag boo xam ne ci wuy si na sëriñ tubaa ci ab woote wuy siin wu doy waar waaye nag léggéeyal sëriñ tubaa it liggéey wu doy waar woo xam ne àdduna bépp xamal nañ ko seen bopp di ko dégg ñu koy nettali sëriñ tubaa di ko wax ci làmmiñu boppam waaye sëriñ Isaa dem ñu defee ne kenn ku mën a tooge toogaayub sëriñ Isaa bi ba ba mën koo fees amatut sëriñ Baara ñëw naka te moom mi nga xam ne daa yaroo ci keppaaruk sëriñ tubaa ni fi sëriñ Isaa yaroo ñëw fees ko dell ba fu ñu tuddati sëriñ Isaa fu turu sëñ Isaa dem turu sëñ Baara dem na fi yaakaar naa ne loolu jural na ak laxasaay gu ko gu dëgër ci sëriñ Naar mu ne man kat dañu daan tudd sama maam ba aw turam daj àdduna di tudd sama baay ba aw turam daj àdduna ñu xëy na ma place boobu yaa ciy toog nan laay mën a def ba sama tur marqué ci turu mag ñooñu waaye yaakaar naa ne turu sëñ naar tey jii marqué na fa turu mag ñu baax ña àgg kon damay bëgg rek bala ñuy tudd ci sëñ naar nga ñëw ubbil ma ko ci sëñ isa ak Cheikh Mahamadou Lamine aouzu billahi samil alim min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadi lasina stafa wa jaan kalaami rashidan wa mursida wa fikratin nawir wa qalbi arshida Eh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nuyu baax di leen siyaar di jiital si nuyoo bi Maulana Cheikh Mouhamadunil Muntaqa xafisahullah waraa waaye di ñaanal baax itam sëriñ Abdoulatif Diène xalifa général bu maam Cheikh Issa Diène di ko ñaanal baax mu yàgg fi te wér te li yéene liggéeyal waajuram lépp borom bi def si ak jàppandal dama ànd ak jullite waaye noonu la ñuy nuyoo itam sëriñ Chouin bu jenn mi nga xam ne moom moo toog toogaayu sëriñ Baara jën di ko ñaanal borom bi dolli ko ak wér tëbb ko kattan ba lim yéene liggéeyal waajuram itam borom bi jàppandal ko ci nim gën a kawee waaye itam di nuyu jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lañ bokk toogal muy sëriñ Sidi Naar sëriñ Sidi doomi sëriñ Naar jenn ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara jenn ibnu maam sa Issa jenn di jël nuyoo bi ñuy nuyu njabootu sëriñ naar jënn gépp teg ko si loxoom ñu bokkal jataay bi nag bokk na si ñun si jataay bi nga xam ne ay jëmm tedd lañu wuutu fi njabootu si naar jenn gépp sëriñ basiiru jënn sëriñ mbàkke ak sëriñ seex ak ñi nga xam ñëpp ak njabootam lañu wuutu fi ñoom ñi nga xam ne ñëpp euh, benn kàddu rek la diglu muy kàddu sëriñ naar sëriñ siidi naar ñu leen nuy wax di leen siyaar di nuyu nag mbooleem juliti fu ñu mën a nekk sëriñ falu galas ñu ngi lay siyaar bu baax di la jaajëfal ci Euh, liggéey bu am solo bi nga xam yaa ngi koy liggéey saa su ne laa labirante ak mbokk jullit ngir ko ñu mën a gën a dégg seen diine waaye mag ñi nga xamante ñoo nekkoon ci keppaaru sëriñ bi itam euh, ñu gën leen a xam di leen taarixal si comme ni nga ko waxee ndax dañoo xam man arraxa fa ka annama ahyaaw ku fekk ab wali nga taarixal ko wax moom mooy kan wax nam la nan la daal liggéeyee wane ay jëfam day mel ni yaa ngi dundal ba léegi ndax bari na ñu liggéeyal yàlla ñoo xam ni euh, ñàkk am ñu leen taxaw ak ñàkk am ñu leen fàttali moo tax seeni tur kenn déggatu ko am na jëmm yoo xam bu ñu leen dee euh, dégg ba léegi jàmbaar la si ñun fi bàyyi waaye xañ na bu ñu yaafusoon wala yaasu bi la leen dégg nga waxaat nag lu am solo muy inda zikri salihina lu rahma nit ñu baax ñi ñu leen di waxtaane yërmande borom bi dafay wàcc te yërmande bu kenn defee mooy nga yërëm nit ki bu ñuy wax rahma mooy motalaqul ata maam lépp lu nit di yittewoo rek day dugg si biir yërmande fan wu gudd mi ngi si yërmande njaboot gu baax mi ngi si yërmande wërsëg mi ngi si yërmande liggéey bu mel ni war a mel barkeel mi ngi si yërmande te nee na yërmande jooju bu ñuy waxtaanee nit ñu baax ñi borom bi daf koy wàcce inda zikri saalihin tansilu rahma bu ñuy waxtaanee nit ñu baax nañ leen di diglu di taataan ndax li ñu tuddee al fuyudaat rabbaniya may yàlla yoo xam day sottiku wala nafahaat ilahiya may yàlla yoo xam day tuuru jamono bi ñu leen di waxtaanee day mel ni ubbi nga sa bool yàlla ji di taw su boo dee teew teewlu day mel ni yaa ngi taataan ndox waaye tey boo taataanul fekk danga dëpp sa bool wala nga dóor fa am ndox ma àggu fa bu yàlla ji tawee ba noppi du am ndox kon bu ñu leen di waxtaanee di ko teewlu lu lu am solo la am na benn borom xam-xam boo xam day wax ne uskur zikra salihina wa sammihimu ndax fa bi zikrihim tatanasalu rahamat uhdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha isa matu nee na buñ leen di waxtaanee da nga leen di tudd di tudd seeni tuur ñu di leen xam ndax tudd gi suñu njariñ la buñ la wanee ginnaaw wala ñu leen di wooteel ay waxtaan dee ko teewee buñ la wanee ginnaaw del dem ci seen xabaru di ko siyaare ndax yooyu dana la may fan wu gudd dana la yokk barke kon lii lenn la ci yooyu nga xam ni borom bi tabaaraka taala dig nañu ko ci waxtaanee ñi nga xam ne ay kàngami borom bi lañu bu ñu Naar nag. moom dañuy wax ne mënoo waxtaane sëriñ ñaari jenn te doo tudd sëriñ Mouhamadou Bara Jenn sëriñ Mouhamadou Bara Jenn tam mënuñ su ko tudd te doo tudd Cheikh Issa Jenn ñoom ñëpp nag boo leen boolee dañuy bokk si ñi nga xam ne borom bi daf leen a melal ci ay melokaan yu kawe ngir seen yitte waaye ngir seenu jàmbaar booy jàng alxuraan borom bi day wax ni wa jaalnahum ahimmatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fi'lal xayraat wa iqaama alsolaati wa ita azakat wa kaanu lana aabidin nee na ñii ngeen gis buñ leen gisee di tàggoog suñu sago di jël suñu alal di leen jox di leen liggéeyal te duñ te duñ ci duñ seen duñ ci benn njariñul àddina di ma ngir yàlla nee na ñooñu dañuy ay kilifa loo xam ne man yàlla moo leen ko def yàlla moo leen bind ngir ñu xet li jaam yi wan leen fi ñu war a jaar maa leen yenkeewal ñuy def lu baax mënuñoo def ab safaan dëkk si jaamu yàlla di wattandiku tere yi sax dàkk nag ci jaamu yàlla wa kaanu lana aabidin ndax jaamu yàlla googu moom lañ leen xamee ndax suñu blaat daa wax ni jamono Sëñ Tuubaa yéen doo liggéey fanaanee jàmm yàlla neen loolu lu ordinaire la woon maanaam ku ko doon def kenn du la yéem ndax loolu moom moo xewoon ci ci ci ci bii a boobu ñu nekkoon kon nag melokaanu aaya boobu boo ko jëlee da nga si mën a dugal da nga ciy fekk sëñ Issa Diène jël si place bu yaatu boo xam du ko buuxante waaye jàmbaar yooyu da ngay fekk sëriñ Mouhalim Bara Diène am si place am bu yaatu boo xam du xat-xatloo waaye jàmbaar yooyu itam da nga Naar Diène am si place am yaatu boo xam ndax yàlla ku yaatu la sëñ Sawran yàlla man yàlla daay dafa yaatu moo tax man du ma yàlla ku yaatu la maanaam ku defee ne daa xat rek yàlla dafa laa ubbilul sëriñ Mouhamadou Fadil nee na képp ku ngeen gis mu man a wedd rek xam leen amut mayu yàlla waaye yàlla moom ku mu ubbi bu ne diw am na nangam rek fokk di nga ko gëm ndax yàlla ko ku yaatu la te yàlla inna laa ala kulli shay'in qadir comme yàlla nee na man lépp laa man yow boo defu dara amoo dara yaa amut waaye nag ki liggéey ba am moom fokk yàlla dana ko teral kon ñooñu ay jàmbaar lañ yoo xam ni dañ ko def benn muqaddima rek pour wane ne ñi ñuy waxtaane duñu ay nit ñoo xam ni dañoo xëy nekk seen bopp ba xëy làqu rek waaye ñoom si yàlla lañ nekkoon seen yëngutu yi ak seenu dal lépp si yàlla lañ ko jeexal boo jiitalee nag jëmm jooju ñuy wax maam Cheikh Issa kooku moom dangay wax ni lu la neex si moom ci aw yu rek bu la neexee mën ko ko wax ndax wal baladu tayib na nabaatu bi isni rabbi wala si xabus laa yaxruju illa nakida ku meñ sëriñ wax leen baara jeen ak ni mu mel meññ sëriñ naar jeen ak ñeneen ñu tuddul kooku moom bu la neexoon sax mën nga ko teg fee bañ ko waxtaane waaye Sëriñ Tuubaa daa wax ni yàlla dafa maa jox ay ahbaab ay taalibe yoo bihim ushiru nuska yàlla jox na ma ay taalibe yoo xam sama jaamu yàlla sax si ñoom laa koy feeñale kàngam yooyu sax boo leen xoolee bu la neexee mën ngaa bañ a àgg si euh, ci ci ci Serigne Touba waaye maam Cheikh Issa Diène tam tey boo yemoon Serigne moo leen baari jën baa nga yem ci Serigne naar jën mën ngaa si moom waaye day am mbir moo xam nag foog da ngay tàmbali si kaw rek di wàcc di leeral ngir nit ñi mën a dégg euh, li ñuy wax Cheikh Issa Diène dañuy wax ni mi ngi gane àddina ci tund tàggoor ni tàggaat ni ko ñëpp xamee waajuram nekkoon ab jàngalekatub alxuraan maanaam di bay di dunde di jaamu yàlla di kaang fóore yëngutoom yëpp di yàlla nga xam ne tey bu yamoon ci loolu dañuy jàpp ni kii ak kilifa la ndax li nit ku baax di def lépp mi ngi koy mi ngi koy def Cheikh bi mu ganee àdduna itam lépp si ak tënk rek moo ko jàngal alxuraan ba mu fer iji jox ko Serigne Omar Oumy Diop bu nekk xandira mu jàngal ko alxuraan ba mu mokkal di dund nag alxuraan nekkul nii nga xam ne dañoo wàcc alxuraan mokkal ko rek toog ndax dañuy wàcc dañuy wax ne wàcc alxuraan wàccoog alxuraan moo ko gën waaye ñoom dañ koo jàng ba noppi di ko jëfee yeesal xam-xamam ba ak ba doon ba di fóore man alxuraan am xam-xam ginnaaw boo xamante si ni waajuram itam am na wàllu bu jëflante ak moom tegtal ko. Serigne Ba euh, Cheikh Issa tegtal ko Cheikh Ahmadul Khadim wax ne kon war naa feeñ te sa doom ji daana tàggu dem fa say tegtal yu bari ba nga xamee ne euh, toog na bis di jàng alxuraanu karim lépp si ak tënk ndax li ñu wax mbokk yëpp xam nañ ko ci biir suratul xaj yi si la jëflanteem ak Serigne Touba feeñ si la gisee ak leer goo xam ne nañ ci baaraamu déem bi la feqe bët fi mu war a bët ba fekk Sëñ Tuubaa fi mu nekk ci Tuubaa muy jàkkaarloog moom lépp ci ak tënk bi mu tàggoo waajuram itam tey wax na ne sax ci guddi si la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam firee la alquran ba suratul xajj bi mu xëyaatee mu firi ko suratul xajj ba mina jinnati wanaas te loolu du xarwa ndax man na sax kéemtaan la ndax dafa ndax ndax ndax dafa jege yonente bi sax mu firi ko alquran waaye Serigne Touba mi nga xam moom doon liggéeyal lu mu wax moom yufassirul kitaaba li man anzala wa kullu man maara li durri anzala Serigne Touba nee na yàlla mi wàcc alxuraan moom moo ko firil kon moom foog mu doon kàngam ci alxuraan ndax comme yonent bi alayhi salaam moo ko ko firil yàlla mi wàcc alxuraan ci yonent bi alayhi salaam firil ko Serigne Touba mu liggéeyee Serigne Touba Serigne Touba jox ko mbóotum alxuraan kon ko du ndaw si alxuraan kon moom li ko lëkkale ak Serigne Touba ci alxuraan la bàyyi ko bi ak agsee sëriñ bi itam wax nañ ne sëñ bi liggéey bu tuuti la ko def si si ni ko nit ñi xamee dëpp néeg toolu bref yooyu les histoire jaar na si ba jaaraat si waaye il faut que yooyu dañ koy tënk rek ngir nit ñi xam ko foofu itam li nga fiy déggee si ab sew-sew mooy bi muy dem ci sëriñ bi abit la jaamukat yàlla la àgg na ci mustawa bu kawe waaye nag mel dafa mel ni boo koy misaal yaa ngi am sa carte crédit boo xam ne dix mille wala cinq mille boo xam yaa ngi ko téye defoo ko si portable waaye mi xam nga mënu koo woote waaye am nga crédit léegi nag la lay may nga mën a jot ñi nga mooy fekk da nga koy def si biir téléphone bi koy validé kon day mel ne xidma boobu mu liggéey Sëñ Tuubaa moo ko ubbi nag ba tax mu mën a def di soppandiku si biir nguuru borom bi waaye bi mu ñëw si Sëñ Tuubaa moom mi nga xam-xam boo xam ni àgg na fépp waaye nag boo gëmee xaq dañ xam am na loo xam sañagu ko woon boobu moom ñëpp gis na mbooloo waaye nag li ñuy wax validation moom amaguloon te boobu kenn ko mën a def muy si Ahmad al Khadim te Sëñ Tuubaa itam bi mu ñëwee xam na loolu xam na ne ki ñëw si moom de gan la maanaam ci ni ñu koy wax maanaam wuute na ak ñu daay ñëw ndax ki xam bi ngay ñëw mat nga sëkk daanaka maanaam bu ñu koy wax ay complément rek moom moo des moo tax bi mu ñëwee sëñ bi loolu la liggéey nanguwul mu dolli si dara ndax dégg nga si ay waxam sax nee ko lii ngay lii nga may liggéeyal man képp maa ko attan ci ñu yàlla bind. kaneen koo ko defaloon ku dul man mu wàcc liggéey. liñ ko liggéeyloo itam àgg na si niveau bu ko bu bu ëppoon liñ ko doon defloo nit dana war a fayiku ci yoonu murid du mën a fayiku ndax jëfam ju rëy kon moom kàngam la koo xam ne bi muy ci Sëriñ Tuubaa ci niñ ko misaale lépp mat na bi mu jaayantee itam euh, xidma moo ko fi indi bi mu jaayantee niñ ko waxee ni mu jaayantee ak sëriñ bi ba nim làqoo ab liggéey ci saayir maam liggéeyam musta taxaw la sa gën a fes danañ si ñëw si liggéeyu ci si si si ci ci ci ci ci waaye fi nga koy tàmbale mooy liggéey boobu moo mën a may loolu ndax Sëriñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi kenn rawu ko woon ci jàmmu yàlla mënoon naa jàmmu yàlla mënoon naa woor lépp lu lislaam di digle mi ngi koy def na booba jàpp na ni ñi yàq ko yaakaar am na lu ñuy xaar ci moom waaye amagul lu mu leen terale te gis nañ loolu xidma rek moo ko mën a may loolu moo war mu dem ci géej gi dem liggéey la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bi muy dem lépp lu lislaam soxla moom moo ci raw ñëpp waaye ndeke am na lu manqué loo xam ni fokk mu dem defe ko ngir mën a te tijaarati la de lan tabuura bu loolu amuloon tey lii lu mën a am xidma boobu nag bi mu jaay bi mu jaayante sëriñ bi taxaw na si taxawaay boo xam ni xamuñu ku ko ci ci ci ci ci ci ci ci ci ñi sëriñ bi ndax sëriñ moom dafa yaatu waaye nag kullu xisbim bi ma la ladayhim farihun ku ne lii la yàlla dénk moom ngay tiitaroo waaye nag na fekk nag li ngay tiitaroo boo ko tegee ñu koy dégg xam ni dëgg la sa Isa loo wax si moom ku ko dégg te bi defal ko tawfiix dana ne ak kii de am na lu mu bàyyi waaye waroon na ëpp lool ndax suñ tubaab moo ne lépp lu waaye wax si man te yokkoo ko wàññiwoo ko kuy góor bu ko déggee dina ko gëm si liggéey boobu bi mu jaayante ak sëriñ bi lu jiitu géej gi ak ni sëriñ bi ñëwee si géej gi lépp ay addiyam musta taxaw ama hadayaahu la tuhsa ala ahadin bi nutqi bil fammi aw bil xatt bil qalam nee ay addiyam si sëriñ Tuubaa la Cheikh Ibrahima Diop almasari yi wax musta dañ di dem ci sëriñ bi boo ko doon bëgg a wax wala nga bëgg ko bind sa làmmiñ say say lor dana jeex say xelima damm waaye mënoo bind ay addiyam ci Sëriñ Tuubaa liggéeyam boobu nag li si gën a fees bokk na si muy liggéeyub jumaay njaarim te Sëriñ Fallu li nga bëgg a li ñu bëgg a xam foofu mooy Sëriñ Tuubaa ñaari barab yi yàlla faye mooy jumaay Tuubaa ak jumaay njaarim si jumaayam ja xam ne daaneeloon nañ ko si tukki bi waaye yàlla defal ko tawfiix ba mébétam yooyu yëpp lu may njaayam rek moo waral mu sotte si ak teewaayu mu julee fa waaye li mu ko doon mébét ci Tuubaa lépp itam taxuloon mu jàppandi ci saayira liggéey boobu nag biñ demee ba suñu borom tabaaraka taala xamal maam Cheikh xamal Cheikh Ahmad al Xadim ni ko liggéey bi war naa am Serigne Touba itam yàlla wan ko barab bi nga xamante si nii fi la liggéey bi war a am muy alboqaantu mubaaraka mu dem ba gis barab bi waaye xam ne barab bi ci ak moomeelu jàmbur la nekk tey suñ maam borom Cheikh Ahmadul Xadim kenn du ko liggéeyal ci anam goo xam ni sellut ndax Sëriñ Tuubaa pour nga jariñu si moom liggéey bi fokk dafay sell fokk dafay dëggu moo tax bi mu gisee barab bi ñu wan ko sëriñ bi sëriñ bi nañ xool wan yoon lañu war a jaar ngir barab bi tegu ci seen loxo nga xam ne barab bi ku ñuy wax Maysa Njaay sestuwaar la ñu wax ne moom moo ko moomoon daa fa jaay itam ñam bi biñ doxee bi Cheikh Issa doxee yi mu war a dox yëpp si ndigalu sëriñ bi ñu dem ba yéen ko léegi ñeent fukki dërëmi ngurdu lañ ko war a jaayee si jamono jooju waaye ñeent fukki dërëmi ngurdu buñ ko dee wax si jamono ji mën naa yomb ci ba nga naan ñeent fukki dërëm rek waaye booba jamono booba wax na ne daa nga bay junni bëri ko doog am ab junni xam nga kon booba ñeent fukki dërëm yi ngudd sakkanoon na si la ko fayee ci ak teew goo xam dara manqué wu dara yéexu si kayit wa itam acte d'avance bi tey bu ndee mag jëmm yu bari am nañ ko sëriñ bi si suñu ginnaaw itam yàlla dogal na am na ko original bi nga xam ne boo ko xoolee dañu gis signature may sa mi ko moomoon ak lebas dara koor mi nga xam ne tey moo fa nekkoon wàllu nasaraan bi ak itam signature maam Cheikh Issa Diène ak kenn ci taalibe yi taalibe yi sax ñu jàpp ne sëñ Modou Fall Thialé ci ni ñu koy waxee moom la moom moo signé ci barab boo xam ni fa la fa la fa sëñ bi waroon a signé nga xam ñeent ñeent signature yooyu yëpp ñu ngi fi luy wane ni lañ ci bind mooy lii wax nañ ci loo xam kenn mënut a dellu ginnaaw génn na ci may Maysa Ndiaye mi ngi ci loxoy Cheikh Ahmadul Khadim ba adduna tukki dellu ginnaaw mënut a am te it loolu lépp mi ngi amee ci. baaxaayu Cheikh Issa Diène ci ndimbal loo xam ne borom bi nar na ko def si moom bi kayit yi meleen ni war a mel itam sëriñ bi digal ko ni ko lay comme barab bi agsi na suñu loxo moom ki ko moomoon na dindi loo xam ak la fa war a nekk lépp ñu jéem nu ñu digloo si liggéey bi te ndigal biñ demee ba si waxtu wu ñu ko war liggéey itam ba bi def yi war a def yëpp bi mu gestoo dane Cheikh Issa Diène liggéey baa ngoo ko sa borom xamal liggéey bi yow yaa ko war a jiite ci teewaayu itam ay kàngam nga xam ni foofa laa jàpp ni te ñëpp moom lañ jàpp ni mbiram mu sotti saa yaram woobaat na mi ngi nekkoon ci sottal jumaa ji waaye gis nga ba mu sottee itam si la mbiram jage ala kulli ba tey jii histoire mënatu koo génne biir liggéey boobu tam diirub li koy liggéey tàmbali ko 1918 ba niñ ko ubbee 1924 wax na ne amul benn soxla bu muy doxi lu dul ni da ko doxlu waaye moom mënut a tàqal ko barab boobu diirub liggéey bi lépp barab bi lay nekk di saytu moo naan nii la ñu war a def bu leen def nii def laan na tey li wér mooy sukkandiku woon ci benn plan kon dafa mel ni ñaanu borom bi ak li ñu tuddee al futuhaat yàlla bu la ubbee soxla woo plan ndax ki nga xam ne moom kii bind plan xel lay xalaat ki lay digte naa la defal defal loolu moo gën a dëgër plan si noonu la ko taxawee liggéey ko liggéey bu set tey wax na ni diirub koy liggéey lépp dund nga fay dund nga fay si ak njaboot moom moo ko fay indi tey itam xewal gi buy ñëw itam. xewal ga gën a méngoo ak jamono ci teraanga moom lay doon ndax day demaat day delluwaat sa turandoom mooy in huwa illa abdun an am na aliy maanaam moom day ab jàmboo xam yàlla moo ko lëkkale ak ak teraanga diirub niñ koy tàmbalee ba niñ ko ubbee eh, dara manqué wu lépp ci ci ci taxawaayam jiite ko ànd koog nag mboolem eh, eh, taalibe yi loolu doon ci benn waaye yëmu si wax na ne boo demee ci biir kër sëriñ bu mag bi teen bi nga xam ne ku tedd gi daana si naan maanaam moo ko gas biñ ko gesee keroog sëriñ bi daa wax ne ndoxum Tuubaa ma borom bi andil na ma ko fii te loolu xikk ma la dañuy wax ne nitu maanaam nitu nitu nitu yàlla ëpp nay wedde yàlla moom ni ñu ko waxee woon rek inna allah ala kulli shay'in qadir loolu moom boo ko xësee gëm rek euh, noppalul wax na ne ni foofu ñuy tuddee néeg ahlu badr yonte bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Tuubaa daa ñëw ni ko de yonte bi day dana ma gane si mook ahlu badr damaa bëgg nga defar ma am néeg néeg ba itam sëñ sëñ mag bi da ko ne ko noo bëgg noo bëgg nga xam ne yow boo doon defar sa bopp noo bëgg a mel rek fexeel ba néeg bi mel noonu nañ mu defar ko defarin wax ci jamono jooju defar gu gu mucc ayib la ba mu nappee itam mu teg fa 313 ci ay toogu ci ay bank nga xam tool mooy toolu limu waa ahlu ci jamono jooju ak jamono jooju ni ni mu jafee nañ bi mu nappee itam doo ko defar lu mel ni benn mbaar boo xam tey bu doon taw néeg bi du tooy ba pare def ko bindoo ko noo xam tey boo taalee ab làmp féppay féppay leer ndax moom xikma bi ko yàlla mayoon ak ubbi ko ko yàlla mayoon ba mu xamu déggoon jamono te itam yàquloon dara ci mbirum euh, mbirum mbirum mbirum mbirum alaxiraam loolu benn la ci wax na ni néeg bi nga xamante ci itam si la ku tedd gi ab liggéey moom moo ko yéwénal ci defar ko ni ni mel noonu bi yàlla dogalee ay jamono itam ñu dem ba defoon ko ba mu xaw mel lu soppiku Serigne Bachir bi nga ko wax Cheikh Amadou Fadil Serigne Bara moom moo defar dal bi demaat nañ ba yeneen jamono euh, sëriñ Abdou Latif Diène mi nga xam moo fi nekk euh, nekkal maam Cheikh Issa Diène moo ko defaraat ni xubu def ci xubu ba ak karo yi ba boo demee ni melo melokaan wam mel lépp génnul loxol njenne kon njenne googu euh, wala penc al buqaatul mubaaraka maam Cheikh Issa Diène liggéey na fa liggéey boo xam ni lu ñuy nettali loo xam dan naan la amoon na fi waaye dangay mën a dem waaxu teg ci sa baram ba léegi nii boo demee ñun ne lii Cheikh Issa moo ko fi def lii moo ko fi lii moo ko fi def ñooñu nga xam ne tam ñooy njabootu sëriñ bi nekkoon foofu itam wax na ne Cheikh Issa Diène sëriñ Tuubaa da ko mayoon que ni dundub këram moom moo ko warlu woon te ku xam sëriñ Tuubaa ni mu sàmmonte ak alal ju lew ni mu sàmmonteeg loo xam ne dafa maanaam leerut bu mu dugg këram comme dem ba doy loola ni la dundub kër bi na nga ko yor kooku ku ne xam ne sëriñ bi am na fu mu am na fu mu ko teg liggéey mburee boobu mayoon na ko lu mu bëgg laaj sëriñ bi mën na ko laaj te bu ko laajee sëriñ bi tontu. ma liggéeyam bu réy boobu taxoon na suñu bëgg ko nee fu mook boroom gaawaan fu sëñ Tuubaa Musaa jàkkaarlook ñoom ñu gis réew yi ndax kontaan ci kon kontaan ci ñoom wax na ne mujj na sax wut benn magasin boo xam ni day def ay bis bu ne la war sa kër ga mu yónnee ko dama toog bu jeexee mu yónneewaat noonu la ko saxale saxale ko saxale ko ba Serigne Bara Diène mi fi nekk rek mi ko fi wutu bi mu fi jógee liggéey boobu wéyal na ko yor waa waa nga xam ne itam muy liggéey bu wéer nga xam ne dem nañ ba ay jamono wax na ni ki mujj si ñoom te nekkoon daaru xudus gi soxna Njaxar si la wax na ne Serigne Naar jenn at mi mu fi jógee fukki bëri goy pepp ak ñaar jébbal na ko ko nga xam dundum at la yàlla dogal na moom bi mu defee loolu si at moom la fa bàyyi ko moom si Naar nga xam kon day mel loolu ndeyuk borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne njëkk mu fi jógee at ma moom di jëddi na ab dundam teg ko loolu loolu loolu wéy te loolu nag kenn mënu ko tudd Cheikh maam Cheikh Issa Dieng foofu la si moom la jaare jaar sëñ moom leen baara Dieng ba ci Serigne Naara jërëjëf <clears throat> macha allah sëñ Mbàkke euh, ubbi gi am na solo lool ci ki ñu bëgg a xam le ndax dafay mel ne bâtiment bi boo rombee étage bu mat fukki euh, bâtiment ak ñaar suñ la waxut fondation ba nam toll doo mën a xam lim yanu nan la demee waaye yaakaar naa ne fondation Serigne Naar buñ dégloo ci sëñ Issa xamee nañ ko ci te day mel ne sëñ Issa daa fees dell loolu nga waxoon ne dama mel ne ku am bu bees jënd carte crédit ba def ko ci nekk mu des nag dem Sonatel ñu defal ko connexion mu man di woote daa mel ne moom connexion la doon wut si sëñ Tuubaa te nit yàlla yi ñëpp nag pour ñu connecté wu ak seen borom ñëw nañ ci sëñ Tuubaa ñi yàlla bëgg a dimbale ndax ñoom ñëpp kenn ku nekk amoon nga carte am téléphone waaye mënoo woon a am connexion connexion bi moom ci sëñ bi rek la nekkoon boroomi xam-xam yu fees dell xam-xam di ay jaamukati yàlla di ay nit yàlla ñoo wuy wuy si woon sëñ bi bokk na ci ay cëri sëñ Isaa rek bi ngay wax noonu ci feeñ googu nga xam ne yonent bi moo ko tafsiral alquran nga xam ne moo ko sëgal gis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nampal ko ci wenu wenu di jooram ba nga xamante ni sëñ Isaa wax na ci làmmiñu boppam ne bi ma xëyee meew mi damay tax xamti ko sama tuñ bu ma ngeen bay day dogal te yaakaar naa ne loolu nag doy na maqaama moom loolu doy na sëkk maqaama ci cirub sëriñ Isaa wax na it ci làmmiñu boppam ne bi ma jëmsee ci Serigne Touba bi ma fanaanee fii ci wetu njenn ci mbal ci la ma sun borom wane ruugoo xam ne nar nga wuyoo jenn bu ëllëgee kon kooku nitam duutu am ci moom kumpa adduna ak kon loolu teg tegtale na cërub sëñ Isaa bu rëy ci Serigne Touba loolu ko sëñ Touba waxoon nag na ko nag te eh, yebal Omar Anta Nguna na ko gopp bee mu yor nangul ma ko te bu bu péng ma àgg ndax su àggee mën naa am ku falu ba noppi ak palam folikuwaat loolu bokk na ci cër bu rëy boo xam ne suñu borom defal na ko sëñ Issa muy xaas jum am ci sëñ Tuubaa waaye kenn ku ne nag ak pas-pas ba ngay wuysee ndax loolu yaakaar naa ne boo delluwaatee ci way juram rek eh, nitu yàlla sërifu boo bu ko doon jàngal di Mouhamadou Racine Niane teeloon na koo xamal mbirum sëriñ Tuubaa teel koo xamal it mbirum sëñ Issa yaakaar naa loolu doy na cër kon eh, lii nga indi nii itam histoire day répété wuwaat. yaakaar naa bu ñu demee ba ñuy waxtaane waat tey jii indi photo boo xam ne fondation jumaa yi njaareem la wan ko sëñ Muntaxa muy soog ko jógee archive bu Paris te fondation ba sëñ Issa gasol gaslu woon ko daaj seel bañ dugal ci biir teel Serigne tubaa seel bi mu wàcc ci biir yóbbaale tureel bi bi sëñ Touba tegee xeer bi ba noppi yëkkati tureel bi jox ko ne ko Issa am seenub liggéey ngoog bu ñu demee ba tey jii ñuy wane waat ba ñuy teg xeer wa yaakaar naa ne loolu eh, histoire indiwaat na. feeñalaat na Serigne Issa Diène kon nag fi nga daaneel rek lay ñëwee jàmbar jooju nag nga xam ne fii la tegee ab liggéeyam fekkoon na mu fat fob matt gu mag nga xam ne mooy matt gi mu njëkk a ko ci taalub Serigne Touba bi muy Cheikh Mouhamadou Lamine Diène ndax jineer bi man di continuer di wéy te du gëmm te du gim. Euh, sëñ Fallou li ngay wax dafa dafa leer ndax itam histoire toujours rek ni ko wax mooy taarix yu ay du nafsa maam taarix moom dafay. dafay dafay dafay dafay répété wu li moo tax waxtaan ak borom xam-xam baax yow yëpp xam naa da nga boo tëbee boo ñëwee nga mottali parce que nit ki day day tax mu gën a xam waaye loolu lépp dafay liggéeyub Serigne Mouhamadou Lamine Bara Diène dafa sofu si liggéeyub Cheikh Issa ndax maanaam Serigne Mouhamadou Lamine Bara Diène bu meloon naneen mooy jaaxal nit ñi waaye kun ne yaay taw Serigne Mouhamadou maam Cheikh Issa nga jaar fi nga war a jaar ci sakku alxuraan ak xam-xam ba sëriñ bi joxe ndigal ni nañ la tarbiya ñu tarbiya la ba nga mel ni nga war a mel sëriñ bi xamal ko ni ko yàlla gërëm na la yoonte bi alayhi salaatu salaam gërëm na la man mi gërëm naa la sa waajur sa isa gërëm na te sa góor yàlla yàlla bokk kooku bu yemoon foofu mbiram sotti na kooku moom da xam ne kon léegi moom mbiram sotti na léegi nag feeñal li ñuy xaar si moom rek moom moo euh, moom moo des te man ngaa doyloo sax ne jëmm ju mel ne siñ naar itam koo ko amoon rek toog fee manees naa wax ne yow moom jàmbaar nga kon moom yi ko boole yëpp dañuy wax ne ñoom dañuy dañuy dañuy sof ab liggéey buy wéy la ndax wurta yam fenn bari na ñoo xamante si nii du seenu yaafus waaye tey sëñ Tuubaa daa wax ne jóge fii sa ginnaaw jag yàlla sax muy ko waa ulul azmi maam juróom yonente yi ñu yi ñu gën a fonk jóge bi seen ginnaaw ja sax yàlla jagle leen waaye boo xoolee njabootu Sëriñ Tuubaa yàlla may na leen ñoo xam ne bañ laa xoo léegi seen mbir dafa jëm kanam waaye ak dellu ginnaaw amu si ñu baara jenn moomu mën ngaa wax ni bépp liggéey boo xamante si ne rek euh, Cheikh Cheikh Issa sofoon na ko ci kër Sëriñ Tuubaa buñ àggaatee si war koo yeesal wala def la ne lu nuru lu mel noonu defaat na lu toll noonu teg sa lu mel ni ki lii borom xam-xam bi wax naa bi abihi bi abihi iqtada addiyun fil karam wa man yushabihi abahu fa ma salam nee na addiyu moom daa ñëw fekk bàyyam fi mu tegoon tànkam mu ñëw teg fa tànkam ku nuru sa bàyyi kay tooñoo moom lu waajuróom defoon bi mu ñëwee dañuy wax ne yokku na ko yokk na ko waxuñu la yam yam na fa de waaye yokk na ko ndax bu fekkoon ni li waajuróom defoon rek fa la yam kooku duñ duñ mënees na ko bañ a kañ waaye bu ñu xamee nag lii la sa waajur defoon nga xam ne léegi tilka ummatun xad xalat ñoom ñun ñu baax lañ def nañ li ñu war a def tilkum xadar la laha maa kasabat waaye nag walakum maa kasabatum wala tusaluna amma kaanu yaamaluun ñoom foofu lañ tegoon seen tànk dañoo xam ne seen di waajur liggéey na waaye loolu doy loolu loolu nañ xool nuñ ko nuñ ko yokkee Cheikh Mamadou Fadil benn ci yi ñuy wax léegi lu mel ni jumaa ji xam nga tiwil la woon 1956 Cheikh Mamadou Fadil moo ko digal mu dindi tiwil yi dal ko jumaa jumaa yi njaareem xam nga loolu ab liggéey la kenn miirewu ko woon moom ci ba moom 1974 moom la yàlla dogal tam moom moo ko miire si ndigalu si Abdou kon kooku jàmbaar la mi ngi mi ngi def loo xamante si ni mi ngi yaatal la almeeri baaxiyan yi ngay dégg si jamono yi euh, Serigne Abdou moom la ko digal mu miire ko te mu am ay sew sew ndax na ne ba mu koy def daa wóolu naar naari jenn ba mu ñëw ni ko boo ñëw na nga ànd ak Abdou Sourang bi mu ñëwee mu xamal ko ne ko de almérie de dafa xat bàgg nañ ci di tegale nit ñi te suufu Tuubaa fépp tedd daa du koy wan ab baram ne ko dama ko defal ko ni war a mel mu nekk ay almel daane nag bëggoon naa koo séddale juróomi kilifa kenn ku ne jox la ab wàll waaye bi ma demee ba ko xam naa ne seex moom leen baari jënd mën na ko daa koy jox ndigal ñu tàmbuli liggéey bi liggéey ko si ñeenti weer ak fukki fan ak juróom wax na ne bi ñeenti weer yi mat ba àgg ba si jàkka ñiy def si bunt bi si bi ñu àgg si liggéey boobu foofu la Serigne Mawlana Bara Diène wàcce ñu toog fukki fan juróom àggale ko bi liggéey ba matee bi nga xam si nga xam si naar moo àggale euh, liggéey boobu bi ñu demee itam bay jébbale caabi Serigne Abdou Lahad wax na ne waxuma la yéen jenn yéen waa jenn ñi ko doon liggéey waaye ku fa jaar sax liggéey bi sedd xolom mu tàbbale si aw ñaqam sax dana am yéwén ak àddina ak yéwén ak alaxira jëlee la naa ñi nga xam ñoom ñoo ko doon def. loolu lépp ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Bara Diène daanaka boo ko doon topp mën ngaa wax ci domaine yëpp diggante ma sëñ Fallu ci ci ci ci anam yëpp musta tekki laxasaayam benn benn benn yoon diirub li mu nekk toog toogaayu euh, Cheikh Issa Diène yëpp ci liggéey yëpp lay fees fépp lañ koy soxlaa njaareem Touba lépp lu yoon wi soxla ci ab liggéey dañ ko fay dañ ko fay fekk ñu ñu maanaam ñu taxaw si nañ sa war a taxawee te liggéey boobu wax naa la ko ne Cheikh Ibrahima Diop almasaan dafa wax ni Cheikh Issa Diène mboolem lim am ba ñëpp di si tedd di si di si terloo amewu ko rek si ci sëñ bi mbokkam la amewu ko rek si daa feesoon bari kii waaye xaasal mafaaxira Issa Diène su karami wafaase bil qurbi wa ridwaani ci lan bil xidam maam ci xidma la amee lim lim liggéey lépp Sëriñ Tuubaa li muy rëy rëy nee na xidmatu xayril alamina salabat liyal karamati ma an fan salabat nee na mboolem karaama yi yéen gis ni mën naa ko di ko def mboolem jaloora yi may def bay jommal nit ñi nee na ko ci dara ci lu dul xidma xadamtuwa bi xidamin la saaniya nee na liggéey naa ko liggéey boo xam nit dootu ko ko dootu ko ko liggéeyal te itam loolu mënees naa wax ne Cheikh Issa Diène ak njabootam ba boo wéyee doo yem si Maodo Mbari tey boo agsi woon ba si Naar Diène mi wax ba si sëtam yi nekk si ginnaaw ba si ki fi nekk maam Cheikh Issa Diène liggéey yooyu ba tey jii delluwul maam delluwul ginnaaw kon Cheikh Mouhamed Bara Diène ku ko tudd ku tudd Cheikh Issa ak njàmbaaram tudd Cheikh Mouhamed Bara Diène ak taxawaayam nekkoon nit koo xam nag boo doon tudd ay karaamam ak ay maqaamam moom yaakaar naa sax duñu àgg si naar te temps bi dara mat. jërëjëf sëñ Mbacké <coughs> yaakaar naa ne li ngay wax jëlale naa leer gi ak dëggu gi waaye xam-xame gi it am na ci solo lool ndax adduna eh, dafa àgg foo xam ne nit ñi li ñuy wax dañ naan fuñ ko bind. donte nag yàlla maye na lu mu bindu ci benn téere waaye comme ñoom li ne ci téere yi rek lañ xam kuy wax ak ñoom bay boo di wax ak ñoom foofa waaye sëriñ bi moom weesu na ay téere euh, day bokk ci may yi gis nga li gën a yéeme mooy nitu yàlla fi mu jëlee gob bi buy wàcc fa la koy tegaat du jële gob bi ci diggu tool bi wàcc bàyyi ko ca diggu tool ba déedéet da koy delloo delloosiwaat ba ci digg yi fi mu ko jëlee woon mu teg ko fi xam nga sëñ Baara bi muy wàcc bi sëñ Isaa wàcc ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mamadou Moustapha li mu mujjee jox sëriñ Issa mu di mbojjum taayif ma sëñ Baara ko taxawee sëñ Issa wàcc moo tax moom bi muy toll ci wàcc mooy ndigal li ko sëñ Touba Cheikh Abdou Lahad jox ci bàq ya àggaliwu ko mu bàyyi fa gob gobba sëñ naar sëñ naar jële fa ba lu doy waar lay doon ay sew-sew dafa nekk ci biir yoo xam ne da nga xam ne gob bi am na kuñ ko fi tegal waaw sëñ sëñ Issa dafa joxoñ ne sëñ Baara mii laa teg gob bi ci loxoom waaye sëñ baara it bi muy dem daa joxoñ ne gob bi am na borom moo tax mu yebal sëñ naar mu àggale ji liggéey ba fukki fan ak juróom eh, soog koo mën a jébbale lu am solo lay doon kon yaakaar naa ne beneen bi ci topp itam ci lu gën a yéeme eh, ci ci ci ci li ngay wax nii fii ma toog sa damay fàttaliku lu sëñ Ablaat waxoon sëñ Ablaat dafa waxoon ne sëñ Touba moo wax ne ku nekk àdduna di fi liggéeyal yàlla ba dem ak noo mën a mel sa ginaaw dana ràpp ak koo mën a doon. nee na boo fa bàyyiwut ku farlu ràpp ga day wéy bàyyi boo fa bàyyee ku farlu nag dana ñëw yeesalaat ràpp ga ba mel ne mu sa kon yaakaar naa ku toog fii danga xam ne nitu yàlla nitu yàlla ku mën a doon boo génnee àdduna sa kër dana ràpp ba mel ne mus am mosoo fee am cër soo fi bàyyiwut ku farlu ràpp ga day wéy waaye boo fi bàyyee nag ku ku farlu dana ko yeesalaat ba mel ne mu sa yaakaar naa loolu tegtaloo na ci diggante sëñ Issa ak sañ Baara waaye gën naa te feddali ko ci diggante sañ Baara ak sëriñ Naar ñu dugg nag ci jàmbaar jooju nga xam ne li li li li li li yàlla defal sëñ Baara ndax ñoom dañoo fexe woon ba doon seen bopp ñoo fexe ba doon seen bopp xam nga sëñ sëñ Baara li ko sos nga xamante ni bi moo ko indi jamono def ko doomu aadama muy dox muy sëñ Touba bu ñuy wax ku kere sëñ Baara danaan sëñ Touba ndax moo woo sëñ Issa na ko Mouhamadou Lamine laa bëgg dencal doomi Ibrahima Fall woo Cheikh Ibrahima Fall na ko sa doom laa bëgg a jox doomi Cheikh Issa ñoom ñaar ñu déggoo ci kon loolu xalaatu sëñ Touba la ñaari murit yu sëñ Touba gërëm murit ba jébbale woon ci Mbàkke Kajoor ak bi jébbaloo ci tubaa mu boole leen ñoom seeni leer moo keree sëñ sëñ sëñ Baara sëñ sëñ Naar kon li ngay tegtale mooy sëñ Naar nag ndakate mooy leer gi juddoo ci biir i leer waaw. ndax jëlale naa ñaari leer yi ko meññi waaye ndigalul sëñ Tuubaa ko boole moom sëñ sëñ naar kon yaakaar naa ne kooku it ah, eh, li ñuy wax ne kéwél du tëb doom ji bët sëñ naar bu ñëwee duutuñu jommal xanaa lu mu defagut moo ñuy waar waaye lu def moom duutuñu jaaxal. waaw foofu nga ko yow mu muqaddima bi nga def doy na kooku moom eh, mooy nuurun ala nuur waaw sëñ naar ja nuurun ala nuur maanaam fi tey boo taxawoon ci penc diggu Tuubaa takk ay rajo posé benn question ni kan mooy doomi ngërëm maanaam ñi ko xam ñëpp suñu ñaar jënd lay wax te te te loolu ñi ko amit bari nañu waaye lan moo tax mu fes si Abdoulaye Ibnu Abbas ku ne xam ne bari na ay doom waaye fi mu tey boo nee Ibnu Abbas ñëpp si Abdoulaye Ibnu Abbas rek lañuy ñuy xalaat waaw te fi mu ne bari na ay doom waaye tey boo ne woon doomi ngërëm tey xel yu bari si ñi xam dëgg-dëgg histoire seen xel yëpp ci sëriñ naar jën lay lay lay lay lay dem mu nekk jëmm joo xam ne ju ñu ju ñu ju ñu waajal la na ko waxee tàmbalee si kaw ba ci suuf ndax dafa am ay jëmm yoo xam ni euh, yàlla daf leen may li nekk ñu xam ko lii ñëw ñu xam ko seenu njaboot waajal nañu waajal leen koo xam ne seen dara du yàqu ndax bàyyi nañ fi ñoo xam ne mën nañoo taxaw seen ginnaaw te dafa am benn waykat boo xam day wax ni walam ara fi uyubina si ayban ka naqsi al qaadirina ala tamam nee na sikk dëgg daal mooy waroon a mat ba pare matoo maam nee na sikk yi moom bari na waaye ku ni séntu jaw ak mat nga matadi nee na moom sikk moom loolu mooy sikk waaye boo xoolee ñi doon séntu ginnaaw sëñ bi baara jënd ñëpp say saa jënd ñi doon séntu ñëpp ku ñëw nga ne ah est-ce que alhamdulilah ku ñëw nga ne est bu fekkee ni da ngay wax rek di seede jëleel yàlla seede ndax wa kafa billahi shahida nit moom bu jël yàlla rek lay jël. témoin pour seede jëmm jooju nag day jëmm joo xam ne jëmm ju ju ju ràññeeku la jëmm joo xam ni dafa nekk ba dem ñu bari xamuñu ko ndax ci ci ci maanaam ci lewet gi ci ci ci wàcce gi boppam mënoon a nekk fu sori diis lool waaye oyof te nit yàlla noonu lañ mel nee na ko mel ne Seex Abdou Xaadir nee na xool bunti yàlla yi bu ne mu bëgg faa jaar fu ma dem ma dëgër mu dëgër waaye nee ba ma ba ma fëggee buntu toroxlu si laa rawee góor yàlla yëpp te ñoom boo leen gisee seen melokaan dangay gis ni maanaam àgg nañ fépp waaye oyof lool nag muy jëmmi sëriñ naar jenn di nekk nit koo xam ne dafa àndaale ay ngërëm comme ni nga ko waxee sëriñ ñu baara jenn bi nga xam ne tërbiya nañ ko ba mel ni war a mel ba sëriñ bi gërëm ko laal ko maam say saa jenn moo ko laaj ni ko ndax bëgg nga Mariama Fall doomi Cheikh Ibrahima Fall mu ne ko man de Mbàkke loo bëgg rek laa bëgg xam nga foofu rek buntu ngi fi buñ mën a jàngalee koo xam ne nekkul di tànn ndax fa saadi maanaam euh, sifaatu saarixil murid bi ixtisaar nasam nasamta xaw faxtira asiduqu fi mahabbat cheikh ab su mam tisaalu am ay su warat dem na bés bi wataar ku li intiraadi mutlaxan wa sarabul ixtiyaar amul doo amul ixtiyaar amul intiraad maanaam lu sëñ bi tànn rek mooy seet tànn daa mbokk mu saf xorom moo xam dañ ne ko euh, luy sa profession looy liggéeyee teg taalibe bi sëñ Basiru looy liggéeyee mu ne xanaa lu sëñ bi bëgg rek maam bi di wut carte d'identité ñu ne ko luy sa profession mu ne xanaa lu sëñ bi ñu ne ko loolu mooy lan mu ne man oo bëgg bu ne damay taxaan métier moom mooy taxaan bu dee bale métier moom mooy bale kon man sama bëgg mooy li sëñ bi bëgg rek waaw kon moom bi ñu ko laajee loolu la wax nee na sëriñ bi woo maam Cheikh Ibrahima Fall ni ko sa doom ji kat laa bëgg a jox moomu leen baare jenn mu Cheikh Issa Dieng mu xamal ko ni ko de lu ne yàgg nga moo ko wax de mu sedd sama xol waaye lu sedd ni lii jël sama doom jox Mouhamadou Lamine Bara Dieng doomi Cheikh sama rak loolu lu sedd sama xol mu sàmm kooku daal di nangu bi mu ñëwee itam Serigne Mouhamadou Lamine Bara ah, sa doom ji Mouhamadou Bara Dieng laa bëgg a jox Marème Fall muy soxna Soda Fall doomi Mame Seraye Fall moom it la seeb la rek la tontu ah sama mag ju baax jooju day yàgg nga ma wax lu ma neex waaye lu neex ni moom musta am nga xam ni nga xam ne sëñ bi foofu dugal na li ñuy tuddee insaniya ndax mënoon naa jëfe coobere jikki-jikki rek def ko waaye gis nga dugal na laaj ba kee def li mu war a def mu dugal diisoo mushawara wa shaawirum fil amr fa iza azamta fatawakkal lallah wa amrum shura te waaye nag booy diisoo say naa daa wax ni ñett nit am bala ngaa dugg si mbir ñett nit am nit ku mat ak genn wàllu nit ak koo xam du nit neen nit dëgg mooy ko am xel di diisoo genn wàllu nit mooy ko am xel waaye du diisoo ku dul dara nag mooy amul xel te du diisoo waaye gis nga sëriñ bi mu duggee loolu jiital na diisoo ba gis ni léegi ñëpp ubbi nañu ay seeni bunt dara dara dara desul lu dul mu sotti waaye gis nga ñoom itam seenu teegu ak mottali lañ war a mottali neen toog na juróom-ñaari weer doo ko sottal mbir ma toogaa juróom-ñaari weer ma xam ne kenn soo soo ñëwul bu doon jamono ji yàkkamte ji la nga ko waaye sëñ bi moom lañ ko wax ne ah waaye nangam waaye gis nga moom doo ko wax ne cell parce que nitu yàlla léeg-léeg dafay seetlooy nit waaye gis nga ban demee ba nga xam léegi loolu nos nañ ko yàlla ànd na si war naa sotti juróom-ñaari weer euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu loolu am ba nga xamee nag jëmm jooju feeñ na si muy Serigne Naar Dieng feeñ ci ay 1921 22 ci fi ma daaru jënd ngir ngi néew euh, Serigne euh, waajuram tudde ko. sëriñ daaru ngañ tàndine di ab taalibeem nga xam ne moom daana wax ni ñu bari danaan sëñ naar waaye sëñ naar du aw wax na ne bi mu wàccee ci liggéey bi danañ si ñëw bu mosaa war aw fas donc bi koy wër di sikar mooy wax yaay sooda nga xam ne fa la naaru juddoo waaye moom daana wax ne ngañ la tudd daana wax it ni ku si mel ni sëñ baar wala sëñ fallu moom ngañ lañ ko daa woowee sëñ fallu moom daana ko woowee ma demba waaye loolu moom mooy daana wax ne sama turu biir nag nga xam mooy tur bi ñu dëxëñ mooy Seydina Ousmane nee na turu biiram mooy Seydina Ousmane wax na ne bu masaa dem gëdee ñoom suñ baaxir bu so Ousmane lañ ko daa te foofu eh, ab sew sew am na fi ndax boo xoolee Seydina Ousmane eh, bi nga xam ne ñu ngi waajal xare tabu mooy jaysul usra xare bu metti boobu nga xam ni saxaaba yi ñaari ñaari saxaaba ñoo daa bokk benn tàndarma am kii day jël genn wàll gi kii jël genn wàll gi ab lim ñooy bokk ak gëléem bu kii waree ba sonn kaneen war buñ maree naan nee nañ giléem la ñuy rendi fi ñuy wax farsi fa fu giléem gi denc ndox mi moom la ñuy rendi giléem gi naan ndox mi ngir sonn xar boobu bi ñu koy waajal yonte bi amul ay jumtukaay te bu te bu tabu bu daanu woon dana métti nee nañ keroog bi mu ne waaw ku kuy jàpp si liggéey bi kenn ku ne du jox nee nañ Seydina Ousmane moo ñëw keroog joxe maam cinquante say giléem si jamono boobu joxe cinquante juróom fukki say fas génn fukki junni jox yonte bi ne nañ keroog bi yonte bi gëstoo da koo xool daan maa dara Ousmane maa faala badal yow mi bis ñi tey Ousmane lu mu defati dara du ko ci fekk wax naa ko benn waaye man ko fi ku weddi mbaa yàlla gi Sëñ wax xanaa foofu nga koy maanaam maa dara Ousmane maanaam tey Ousmane loolu maanaam maa te boo jàng balaa xam maa bàyyiwul dara maa maa dara Ousmane Ousmane lu mu defati bis ñi tey dara du ko ci fekk loolu xam mooy mbaa yàlla waaye tey ñoom seenu mat àgg na si duñ leen wax loolu moo ñuy def ab safan ndax seen i cër nanguwul safaan mujj na xool ko ne ko anta wali fi dunya wal axira daa mujj ges ne ko ne ko yow yaay sama yow kii méngoo man àddina ak alaaxira ndax su jëf joojee loolu la suñu too wax ne baatu nabiyu ila fajarin yaruumu lahu ridan min allahi sa tafdilu kubbaaru suñu too yonte bi daa julli fajar eh, gee naan yàlla yàlla na nga gërëm Ousmane yàlla yàlla na nga gërëm Ousmane ba fajar jot ngir lan ngir jëfam juree jooju te boobu fekk na mi ngi julli mi ngi woor mi ngi def yëpp waaye rëy bu bu rëy boobu mi ngi ko amee ci ci xidma nga ñëw teg nag jëmmi sëñ naar mu wax si aw làmmiñam ni moom turu biiram mooy mooy Sayyiduna Usmaan kon du kimtaan bu ñu gisee jëfam yi ñoo xam ne fokk ni la waroon na noonu jëf ndax nitam léeg-léeg da ngay jël ay mbir di ko di ko di ko li tax mënoon a tëdd Abu Bakar mënoon a tëdd Sayyiduna Umar waaye mu da jël Usmaan dañ xam ne loolu te dañ wax ne mboolem ñi nga xam dañoo àndoon ak Sëñ Tuubaa dafa am lu leen Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa daa doon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla fay ko ay góor yàlla xam dañoo nuroog saxaaba yi ridwanullahi alayhim fi boo ko doon natt boo tegee Seydina Aboubacar da ngay da ngay da jàll maam ci dëggu ga ci jënd barab boo xam ne fii tey jumaayam jumaayam ji nekk nga xam ne moo ko jënd ci ñeent fukki dërëm ci ay dinaar nga ñëwaat fi fekk Cheikh Issa ci dëggu gi ni ko sëñ sëñ si Massamba Kane waxee ne Cheikh Issa dégg nañ ci làmmiñ Serigne Touba mu ne na si Aboubacar waaye ñeent fukki dinaar yi mu fële noonu nga koy toppee ci lëkkale ba ñoom ñëpp euh, liggéey liggéey ba mat kon turu biram moom mooy Seydina Ousmane bi nga xamante si itam yàlla dogal na Euh, mu àgg si ñu war ko tarbiya wax nañ ni Cheikh Issa Diène moom moo digal sëñ Baara ni ko demal nga jël ko ak magam soxna Fat Diène mooy soxna Fat mbooba nga jox ko Cheikh Moudou Fadil nga xam ne kon si ndigalul Cheikh Issa Diène loo ko sëriñ Baara Diène joxe sëñ Fallu pour mu tarbiya ko nga xam bañ ko koy jox itam ci niñ koy misaal tu tànk la ndax wax na ni guddi gi mu njëkk a fanaan ca ca daara ja sëñ Fallu daa wax soxna bu Dieng waajur suñu mosoon ni ko ngañ dem kat ngañ mii kat boo xëyee dee ko tibal cere ndax ndax ndax weesoogu ko xam daanaka si juróom-benn at si yoo xam matagul foofu la doon du tànk si diggante boobu la nekkee ak moom nekkee ak moom ba mat a kër mu doog a tàqalikoo ak sama faadal tarbiya ko wax na itam moom moo ko jàngal la jàngi wax ndax lépp li war a def li ñu war a def si nit lépp daal si moom la ko defee ndax bi mu tollee si war a jàng wax na ne moom ak sëñ Abdou Karim mi nga xam ne ab taawam la woon bokk teg mii ak sëñ Modou Boussa Dieng ak suñ Modou Ajara ak suñ Cheikh Oumy nee na juróom ñooñu la jël jox leen suñu affaire suñu affaire jox leen suñ Modou Kane mi nga xam ne mag la maanaam mag la ji eh, suñ Bousso eh, imam mi nekkoon ci jumaa ji nga xam mag la si moom xam moo leen jàngal alxuraan nee na ba ñuy jàng alxuraan ba mu yàgg nag la suñ la la la maam Cheikh Issa Diar ñëw ñëw jël ko mook suñ la suñ Baara ñëwaat jël ko ak eh, suñ Modou Ajara yóbbu la ñu tarbiyewu ji am ci biir daara ja bi ñu jógee sëñ Modou Kane moom nee nañ sëñ Mor Sànqe lan lañ lan demaat xam ne benn daara ju ñu daan ko sëñ Mor Sànqe dafa jàng alxuraan foofu nag la sëñ Fallou jël la sëñ Baara ñëwee la sëñ waa la sëñ ñëwee jël leen yóbbu leen sa daara ja ñu def li ñuy wax tarbiya ndax tarbiya danañ si ñëw sax si wàcc ndax mooy mooy mooy moom moom beneen beneen domaine la waaye mu nett li fa ne def nañ fa tarbiya goo xam ne booba Madina booba dëkk bu jafe la wax na ne benn teen sax moo fa amoon te nekkul ci dëkk ba ca pël ga lañ koy lañ koy lañ la nekk nga xam ne ay siyaan ñoo fa nekkoon yoo xam ñoom ñaar dañ ko wutal ay kubéer di ci root nga xam ne léegi bu siyaan yi jeexee il faut que dañuy dem ci ci teen ba fa pël ga doog mën a root pour indi sëñ falo te nee na bala leen a pëlee jox goj bi fokk di kenn ku ne di nga ko rootal lu mat fanweeri nag ñu naan ba màndi wala ñeent fukki nag ñu naan ba màndi nga doog a root sa sa sa paan nga dem sawte si njàqul sëñ Fallu doog a ñëwaat rootal jigéen ñi te def nañ ko ci ay ci ay ci ay jamono yu jafe liggéey liggéey maanaam liggéey bu bu bu bu bu métte métti lu ne lu ne lu ne daj nañ ko wax nañ ne ci biir tarbiya googu ànd na ak sëñ Fallou ci ab tukki sëñ Fallou jóge Madina booba ñëw Madina Touba gi foo si nekk nag bu sëñ Fallou waree moom mooy nekk ci ginnaawam di dox yanu walis yi bi ñu fi jógee mu dem Ndindi moo topp ci ginnaawam yanu walis yi ñu jógee fa dem Misra moo topp ci ginnaawam yan yanu walis yi demee Ngaabu ba Xuru Mbàkke diggante bu ci nekk sëñ Fallou lay war ci kaw. moo dina ko si ginnaaw mu yor wal si te nee na fu ñuy fanaan benn mu nekk moo sëñ Fallou ñoo fay bokk fanaan sëñ Fallou day tënk si kaw ni ko ma dem ba tëddal nii bu ne waxtu jot moo koy moo koy teg tànkam ni ko ngañ jógal waay ngañ jógal waay nga xam diggante yëpp jaar na fi ak Cheikh Mouhamadoul euh, Fadil nga xam ni kooku dañuy nga ni euh, nit la ko xam tarbiya te te tarbiya si wax lu am solo wax na njurul ni am na tawat ju fa amoon yoo xam dafa jaaxalu nit ñi. waaye mu ne moom yàgg mu ne maanaam taxaw di jaaxal na waaye am na taalib boo xam sëñ Ibrahima Sarr moo ko tarbe te joxoon na ma am mbubb nañ jëli mbubb moom ñu ñenn ko si daara ji ba xam mu neen mbubb bañ beneen beneen te moom tarbiya nañ ko nañ ko war war a tarbiya nee na si diggante boobu nekk na fa ginnaaw bi sëñ Fallou jëlee na ko foofu mu dem jàngi xam-xam wax sëñ Baaxir sëñ Baaxir Bousso nga xam ne moom jàng na ne ko si yéem sax nee na sëñ Baaxir ku mënoon a jàngale te njàngam am barke nga xam ne ne bind bi mu lay jàngal tey da nga si mën a déggee bindu bindu sëw kon nga xam ne def na alxuraan def na xam-xam def na tarbiya yooyu yëpp nee na tarbiya bi sax àggoon nañ ci benn diggante boo xam si Modou na ginnaaw bi mu nekk bu mu ñëwaatee ko que Sëñ Modou Moustapha bi nag bi mu ko nee Madina booba la Sëñ bokk na benn néeg mook Sëñ Modou diggante bu yàgg boo xam ne ne Sëñ Fallou buy jàpp da leen di seddale ndox mi Sëñ Modou naan mu naan genn wàll gi na rend na ab gàtt sax jox leen ko ni leen fees leen ko ci goo xam doomi sëñ Fall doomi sëñ Nanga ay kilifa waaye ba mu nappee daa ñoo neen di du dara ab liggéey rek la fekk na boobu mi ngi dindi mi ngi def si ñoom agré mi si ñoom itam ni ñuy tuddee tawaadu ak toroxlu nga xam tey boo ko doon tënk def na li mu war a def lépp ci saayir jàng na alxuraan jàng na xam-xam tarbiya nañ ko sëñ nee nañ sëñ ba sëñ Fall noonu la nekkee moom ba xëy daa di woo sëñ woon baar jeen ni ko kii li ma doon def si moom lépp def naa ko bis ni ki tey nag daal di yëkkati addiya jox ko ni ko na nga jébulu ci ci sëñ baara mi loo xam wax ko lu la digal na ko def da nga yem si moom képp nga xam ne kooku li ñu war a def si moom lépp def nañ ko zahiran wa baatinan jërëjëf euh, sëñ Mbacke <clears throat> jërëjëf itam El Hadj Fallou Sylla caméraman bi ñu jàkkaar lool <clears throat> jërëjëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di seetaan lii lépp nag def ko ngir waajal ko bis bi nga xam ne ci la ko njaboot gi di fàttaliku mu di sëriñ siidi ak ay rakam yaakaar naa ne waxtaane nañ ko muy koo xam ne ndigal moo ko moo ko moo ko wàcce jamono muy ndigalu sëñ Touba di doomi ñaari boroomi ngërëm di Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Issa Diène kenn ku nekk amub cër ci sëñ Touba waaye nag bi mu noppee itam ki ko tërbiya moo di ma Mamadou Fadal te sëñ Touba daawut laaj ku la ja ku la jur ku la yar rek la daan laaj te bokk na ci tawféex ji mu gën a ràññi ko mooy li sëñ tubaa waxoon ci ceerno Birahim borom daarul moxti man nañ ko wax ci sëñ sëñ sëñ naar mooy li sëñ tubaa ne woon ceerno lu ci neex nit mën a lu ci naqari nit mana ndax maa ci njëkk ci ak ndaw maa ci noppi ci ak mag waaye sëñ naar it la ci neex sëñ fàlloo loola ci naqari sëñ fàlloo ndax moo ko yar bi mu amee juróom-ñaari at ba ni mu xëyee mat sëkk mu soog a woo sëñ baara na ko na jëblu ci yow mu toog it doon taalibib sëñ tubaa boo xam ne mbooleem doomi sëñ tubaa yëpp làq na seen ngërëm la ko tàmbalee ci Cheikh Euh, Cheikh euh, Serigne Fallou may sëriñam jaar ci Cheikh Abdoul Khadir ku ci nekk seq na ak yow jëf jaar ci Cheikh Abdoul Ahad ba ci Serigne Saliou amut kenn koo xamante ne bii sëñ naar sequt ak jëf ba ci Cheikh euh, Mouhamadou Lamine Baara Mbacke daana toogal boppam it ci ëttam bii njabootam gii kenn ku nekk dajale sa addiye di ko yët ci bisam bii nga xamante ne bii ci la moom la ko daan fàttali ko ci kori wi mu leen di wax ne lépp lu waaye bañ ma jox ko sëñ Tuubaa ko teg sama loxo moom lu mu am jox na ko sëñ Tuubaa kon nag kooku liggéeyal na yàlla liggéey bu rëy bisam boobu nag moo dëgg ma ñu war ko fàttaliku sii Sidi nag ni mu ko defee rek ubbi ay buntam wax na ne amul yenn rakkam ju yëkkati kàddoom moo leen di wooteel képp koo xam ne ci këram nga aju nga xam ne boo ñëwee ci moom ngay ñëw directement wala ngay dem ci kër rakkam ju mu mën a doon nee na bis bii daal mooy bisu sañ naar bisu sëñ naar nag nettali nañ leen sëñ Isaa nettali leen sañ Baara wax leen jëmmi sañ naar kon képp koo xamante ne bii bëgg nga ci ngërëmul yàlla loolee sëriñ bi moo lay tàllal loxo kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di balu àq ñëpp di leen baal àq di ñaanalaat sëriñ ko fi son borom a yàggal a dolli ak wéram ko mbooleem rakkam yi mu jàkkaar loolu yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa بسم الإله يكفيني الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من له